dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne ci lu gàtt rek ma dellu si interpellé leen alerté waat leen sàll Macky Sall génnee na di bokk ci élection 2024 Sénégal yépp dañu am yaakaar ñépp félicité ko bu ngeen fàttalikoo ma ne nañu tey ndax am na certainement lu mu denc. loolu mu denc mel na ni taxaw na pour génne ko dañu doon wax ne am na lu muy remadaat Macky Sall dafa renoncer ci candidature am waaye musul jële xelam ci ne Sénégal moom daf ko war a téyal boppam moo tax ci lundi bi assemblée nationale dañu leen woo waxuma sax ñu jëm ci mbiri parrainage wala ñu jëm ci mbiri Karim Wade ak Khalifa Sall ñu bokk loolu mooy lu normal mais li mu ci dëxëñ moo am solo te li mu doon ru mandat yépp ci loolu la jëm moom Macky Sall jaxasewaat constitution bi tripatouiller constitution bi ngir tas assemblée nationale parce que yéeneen moom Macky Sall mooy élection yi amaana di nekk candidat président waaye loxoom du ci mos a jëm te ci loolu nag la nekk di def fi mu toll nii njuuj njaaj waxoon na ne bàyyi na njuuj njaaj mais tey na gën a sax ci njuuj njaaj waaye waaye njuuj njaaj googu na ko jëmale ci lu ñu mën wàññee diw gi wàññi suukar bi wàññi ceeb bi wàññi jafe-jafe yi ñu ñuy dund waaye Macky Sall lenn rek moo ko intéressé lu ñu mën def ba njuuj njaaj ci wàllu politique loolu vous les Sénégalais vous êtes interpellés mais ki nga xam ne moom la ñu gën a bàyyi xel ci njuuj njaaj googu Macky sàll war di def mooy député yu opposition bi principalement waa PDS ak waa taxawu Sénégal bu Khalifa Sall seeni candidat bokk ci élection yi loolu la ñu mus a ñaan te loolu la leen di souhaité waaye bu leen ànd mukk ci luy néewal doole constitution bu Sénégal parce que Macky Sall bu ngeen ko mayee mu mën a tas assemblée nationale bii yéeneen moom Macky Sall mooy bokk ci élection yi ñëw parce dafa bëgg coupler présidentielle ak élection législative bu ko defee moom mu jiite liste coalition Benno Bokk Yaakaar taxaw nekk ci biir langue gi sénégalais yi jóg leen réveillez-vous bu may Macky Sall possibilité mu mën a indi geneen jiixi jaaxe ci xelu nit yi waaye mais moom Macky Sall na xam ne li mën a nekk Russie li mën a nekk ci Poutine ak Medvedev non Sénégalais yi du ñu ay rus Sénégalais yi amuñu état d'esprit boobu te parewuñu ci may ko moom Macky Sall li mu bëgg mu mun ko def ci réew mi yi da ngeen taxaw jàkkaarloog moom jotuñu soccant ak lu mu indi ci njublam Sénégalais yi dinañ la xaar ci urne bi te bu boobaa fi ñu jaaroon ak yow ci local yi jaar ko ak yow ci législative yi ñu weesu danañu fa jaaraat ak yow. ba doo am benn ndam ci yéene bi nga xam ne am na ko Sénégal tey jii démocratie Sénégal boobu ñu amoon yaakaar te bi moom Macky Sall ne dellu na ginnaaw ci candidature am nit ñi di taañaañal nit ñi di ko félicité man biroon na ma ni baadoo la bu séenee gàcce faaw mu yegg ca te loolu nag dafa interpellé kenn ku nekk ci yéen ngir li mu nekk di def jàpp nit ñi tëj kaso ku wax ñu ne la ràpp tëj ci kaso bi plus de six cent détenus politiques jubluwuñ ci lenn lu mooy tëj làmmiñu Sénégalais yi mais que Macky Sall sache que les Sénégalais dinañu taxaw dinañu défendre suñu constitution mais dinañu fexe ba moom li mu bëgg muy njub la ngam googu du mës a sotti vive la démocratie vive le Sénégal. dal leen ak jàmm xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw